Don't break your fasting. Don't break your fasting. Bul dog sa koor. What should I do? What should I do? man lan laa war a def. What should I do? I should do that mooy dama war a def loolu. You should go da nga war a dem. What should I do? lan laa war a def. in the day if I am fasting. In the ci bis bi bu ma wooree lan laa war a def ñu war a jàng nag mooy yu ama am solo ci wàllu lekk ci wàllu mos dara ci wàllu sàq mi nan lañ koy waxee ci anglais ok góox nan lañ koy waxee mos nan lañ koy waxee ci anglais Don't taste food. Don't taste food. Don't taste food. Bul mos. Bul ñam. <laughs> Bul mos lekk. Don't taste. Please, I just want to taste. jàpp si dama bëgg mos rek. May I taste. ndax mën nama maa mos. you know. May I taste ndax mën na maa What are you queuing, Ali? Ali, what are you queuing? What are you queuing? A queue mooy saaxar mi mooy dugal lekk sa gémmiñ gi di ko saaxar mi loolu mooy queue boo ne I am queuing something exemple dina ñëw ci kanam mooy maa ngi saaxar mi dara ok I am not queuing anything man sàqanuma ma dara man sama gémmiñ gi defuma ci dara ba koy lekk moo tax nga gis baat bi ñuy wax si singom chewing ngam la chewing ngam mooy loo xam ne dafay sàqan bi li nekk sa diggante ba yi chewing I am not chewing anything man sàqanuma dara man saxuma dara mm-hmm. I am not chewing mooy sàqan bi sàqan bi mooy chew I am chewing something maa am lu may saxar mi you are chewing something am na looy saxar mi I see you beat something lan mooy beat biit bi mu ngi bàyyeekoo ci beat bi nag ñaari moo la la maanaam ñaari signification la mën a nekk bu fekkee da nga bëgg a wax ni a little bit mu ànd ak little mooy lu ndaw ndaw mais nag bu fekkee ne past bite la b b i e, bu boobaa mooy dagg I see you beat something gis naa nga dagg dara dagg bu ndaw beat ah man kat I beat a piece of mango I beat a piece of mango man kat li ma dagg kii rek mango rek laa dagg benn pièce mango rek laa dagg moom laa dagg I beat a piece of mango mooy dagg naa boo ne I just bit a piece of mango mooy man piece mango rek laa dagg di ah kon kay you break your fasting ah wala want break your fasting hmm? da nga bëgg a dog yow you want to break your fasting yow da bëgg dog wala yow dog nga sa koor hay yow de da dog sa koor rek ok you break your fasting I just want to break my fasting dama bëgg dagg rek ok ah comme que yow koy def nga loolu you can go now to sip water <laughs> ok ba léegi gis nga moo bi to sip something bokkut to drink man drink moom mooy jëmmi naan sip nag mooy lu ñuy def gox bu ndaw comme lu tàng buñ koy naan nga xam ne mënuñ ko naan lépp niñ koy def noonu benn par benn loolu mooy she you can go to sip some water exemple ñu am ñaari phrase buñ ne ba mu ne I am sipping coffee mooy maa ngi gox café gi wala ma ne I am sipping tea I am sipping maam I'm drinking but a little bit I don't drink it I don't chug I don't chug ok duma ko góox benn yoon wu jeex baat boobu moo ci topp mu ngi ci kanam I am sipping coffee wala the coffee maa ngi naan kafe gi mais maa ngi koy gox benn par benn ok I am sipping tea wala am sipping the hot water ndox mu tàng bi maa ngi koy naan ndànk ndànk gox gox yooyu loolu may sip ok chug the barrel of water lan mooy chug chug wala chug mooy exemple am. chugging the please li nga bëgg a wax the drink mooy naan benn yoon maanaam pot ndox bi danga ko jël nga góox ko rek te amul benn sipping boo si def loolu mooy chug ok don't nibble the cake nibble don't nibble the cake bul cekkati mooy cekkati ci dara lu tuuti dagg ko loolu mooy nibble don't nibble the cake wala nga cake mooy gato bi bul ko ceket yow da ngaa war you are fasting you have no right to nibble anything yow amoo droit ceketi dara lu ñuy lekk ok I want to nibble a little bit please give me may ma waay please over me please give me I just want to nibble nibal a little bit little bit gi ma doon wax nii moo nekk nii gis nga biit fii nii bu fekkee dafa ànd ak liital lu tuuti lay tekki dama bëgg ci yëkkati tuuti rek tuuti rek nga may I want to nibble a little bit when you are fasting you have no right to nibble some food mm-hmm. you have no right also to sip some water Ali I caught you yesterday Ali yow démb bett naa I caught you mooy bett la I could, the chief eats sashimi man dama ko bett ok I caught you mooy dama laa bett I caught you dama laa bett I caught mhm. ngi bàyyi ci catch bi nga xam ne buñ ne catch up mooy dabaatal mhm. I caught you you were drinking water gis nga you were drinking water bettoon naa la ngay naan ndox ngay naan ndox ok wala bettoon naa nga doon naan ndox mm-hmm. you are drinking water léegi nag while you are drinking water sometimes you chug or you chug the water or you sip it it depends on the water that you are drinking if it's cold water you may chug it but if it's hot water you may sip it yesterday I was not fasting, Ali or Modu. Yesterday, I was not fasting. Yangi Wahne, you said that you caught me yesterday, but me, I wasn't fasting yesterday. da wax nag ma bett démb man woorumoon démb yesterday I was not fasting I was fasting mooy dama wooroon I will be fasting mooy dinaa war I am fasting mooy nii nii maa ngi woor ok démb wooruma woon de ok yesterday mooy démb today mooy tey tomorrow mooy suba yesterday I was not fasting hmm? ma démb wóoruma woon ok yesterday last week last month because I was sick hmm? I was sick ndaxte dama feebaroon I am sick dama feebar ni may wax ak ni ah, sorry I am sick I cannot talk to you anymore baal ma nag dama feebar mënuma lu bari ok because I was sick I am sick mooy dama feebar ni I was sick but I'm feeling better right now dama feebaroon mais benn instant maa ngi am jàmm bu baax maa ngi am feex am feeling better right now ok wala I hope you feel better maa ngi lay ñaanal wala bëgg naa nga ne ci jàmm ok exemple si beneen mot bi nga xam ne mooy bit fi mu bàyyi ko muy bite benn proverbe bi ñuy wax ne a barking dog never bite ok liñ naan xaj buy bëw du màtte xaj boo xam ne day bëw du màtte kon mat mooy bite ok the mosquito bite me a barking dog never bite dog mooy xaj barking mooy bëw the dog is barking mooy xaj baa ngi bëw léegi bite nag moom laa fi soxloon muy mat bi firiti dagg léegi ñi dem jël mots yi nga xam ne lañ amoon ci biir bu nekk ñi def exemple aussi I am chewing the rice comme maa ngi saaxan bi li nga xam ne mooy ceeb bi am chewing you know I pick am chewing mm -hmm. I'm chewing the rice I'm chewing maa ngi saaxan maa ngi saaxan bi li ngay lekk nga wax ok boo ne am chewing mm-hmm. beneen France bi beneen mooy bi muy chugging chugging chugging am chugging the drink xam nga ne am chugging mooy maa ngi naan naan boo xam ne benn yoon nga koy def ndox mi pot bi wala bouteille bi dañ ko jël rek nga naan benn yoon te amul nokki loolu mooy chugging ok when you want to do that so you must get a um, maybe a cold drink pour nga def ko nag mën naa am nga li ñuy naan mu sedd mu sedd mais bu tàngee moom doo ko mën a def bu tàngee beneen mot bi nga koy mën a def mooy sip ok mm, but hot coffee hot water you cannot chug it mm-hmm. wala I am sipping the coffee I'm sipping the coffee I am sipping the hot water mm-hmm. I don't drink wine I don't drink wine But for those who drink wine, they may sip. I don't drink wine. I sip the juice. Oh, the juice. I'm sipping the coffee. maa ngi naan naan boo xam ne góor benn par benn mooy sipping mm-hmm. the coffee the tea the hot eh, let me nibble a little bit why let me nibble a little bit may ma rek ma cekkati may ma rek ma mos tuuti mm-hmm. let me a little bit may ma wala xaaral ma cekkati tuuti ok let me mooy may moom ma def ok now here is where we stop and give you an appointment also until our next lesson bye bye